Badou Ndao maa ngi lay nuyu. maa ngi lay waaw Badou Ndao euh, le médiateur nga nekk président du mouvement des porteurs de projet yeewu leen euh, d'abord nga wax ñu tuuti ci sa mouvement bi euh, lan mooy ay objectif am lan moo ko tax a jóg. waaw yeewu leen maa ngi nuyu ñëpp yeewu leen euh, à l'origine sax ki tuddoon euh, acte action parce que ñun dañu toogoon ñu xalaat ne. parce que ci dëkk bi lañu dëkk màggee fi ñu am ñëpp fi lañ ko amee donc euh, ñu xalaat ne war nañoo fu ñu mënti toll rek di xool nan la ñu mën a def pour dimbali euh, suñu dëkk suñu réew donc ñu jël ko def na def ab action civique def nag ay action yu bari que nag dañ nekkoon ay groupe boo xam ni dañoo jëloon ay ñoo xam ne xalaat nañ ne am na lu ñu xam ci dëkk bi ci ay seen ay domaine ak yooyu ñu ne nañu xool nan la ñuy dimbalee état ci ba ba fu mu yegg ah ba ci quartier du quartier autorité toutes les autorités yi nga xam ne mën nañu dimbali pour que ñu euh, yëf yi mën a mën a avancer parce que du toujours la ñuy toog di ci état lu nekk xalaat ne am na loo xam ne mën nañ cee wax proposer ko autorité locale bi ba fu mu yéeg rek ba looloo tax euh, ñun bi ñu commencé suñu loolu di def ay ay projet yu bari projet yu bari nag yuñ fi fi def yoo xam ni gars yi def nañ ko euh, kii nañ ko yi nit ñi di gën a dégg par exemple boo xoolee lu mel ni bateau taxi yooyu président Abdoulaye Wade doon doon wax nga xam ni euh, ñun ñoo ko defar ñun ñoo ko defar du début à la fin mu doon temps boobu Dakar xat na xat boo xam ni ñu leen am mën nañ ko désenclaver ni ñu ko mënee désenclaver moom mooy jël benn projet boo xam ne day jaar ci géej gi parce que dëkk boo xam ne tamit géej gi def ko wër ci ci ci ci ci ci ñaari côté war nañu mën a utiliser géej googu pour mën a régler problème mu désenclavement ci lañ defaree projet bateau taxi boobu. Mhm. te biñ ko defaree dañ ne woon dañuy jëlee kii poor bi. dañuy jëlee bateau ci port bi mhm. ñaari batu sax yu nekk ci port jëlee leen foofu ñëw caaroy caaroy mu ñëw Rufisque Rufisque mu ñëw géréw lañ doon def portu géréw boobu ba pare sax ñu ci portu géréw boobu sax duñ fa dem ne portu géréw bi sax mën na servir nekk poor boo xam ni maanaam dañ koy utiliser pour que moom à partir de Guédiawaye ñu désenclaver euh, Casamance parce que ni ñuy defaat désenclaver Casamance ni ñu demee def études yi dañu rendre compte que ni Ziguinchor portu fleuve la cest à que bateau bi lu mu gaaw gaaw gaaw bu ñëwee ba ci ba war a dugg ci fleuve bi il faut que mu si fa marée haute pour mën a dugg pour yegg Ziguinchor buy génn Ziguinchor aussi marée haute moom ko koy génne ñu ne donc pourquoi pas ñu def port ci ci gi disons parce que géej gi ak Ziguinchor soixante dix kilomètres la soit ñu def ko Jembereñ wala ñu def ko euh, kii nu mu tudd euh, Cap wala sax ñu def ko boogee boobu noonu nga xam ne moom mooy embouchure bi fa donc ci biir loolu la ñu ñëw proposé ko à l'époque euh, kii bind président ak yooyu après ñu écouté ko Djiboka Djiboka ndeysaan ñu liggéey ci lu baree baree bari après Souleymane Ndéné ñëw ñu liggéey ci ba président ci boppam woo ñu ñu dem foofu toog waxtaan ak moom mu gëmoon projet bi trop mais yeneen dugg ci xam nga ñoom seen ay affaire bu dul loolu tamit yu bari daal wax dëgg fa yàlla def nañ ko bu dee moment bi ñu toog ni di wax nii bu président Macky Sall moom mi mi nga xam ne bi mu ñëwee dafa ñëw yore document ne lii laay liggéeyee buñ ma élire ci cinq ans yi sept ans yi li laa ciy def donc moom moo ñëw bind programme am tuddee ko plan Sénégal émergent ñun dañoo dem je crois que ñun rek ñoo ko def te duñu opposition parce que normalement une opposition bu normale bu républicaine loolu la waroon def jëm jël li nga xam ne moom la Macky Sall ne daf koy def moom mu ñëw xool ne lii kat d'accord nañ ci lii d'accord nañ ci mën nga koo defee nii mën nga koo defee na la une une opposition vertueuse boo xam ne dafay opposé pour la république loolu lay def parce que noonu sax moom mooy tax mu jàng mu ñuy kii nguur parce que foofu bu ñu fa demee ay borom xam-xam ñooy toog wax bu Macky Sall ñëwee teg terre bi ñoom ñu ñëw ngir ko le beneen beneen lu gën teer bi loo xam ni moo ko gën bu Macky Sall tegee ne lii laa bëgg def ci fii ñoom ñu ñëw xool ne lii ñu xool ñu ngi koy defee nii d'accord uñ parce que suñu alal rek ñuy dem nii ainsi de suite noonu opposition war a mel loolu non seulement dafay tax débat bi dafay nekk débat wu xam-xam i euh, day nekk débat wu xam-xam mais day nekk débat aussi boo xam dafa leen di permettre ñoom bés bu ñu yógee ci nguur gi xam yan mooy problème ñi nga xam ne moom la ñu nar a jàkkoon dans le futur ba moo tax boo demee ay Angleterre o fekk opposition bi di am cabinet fantôme maanaam di mettre niveau ci nguur gi niveau boo xam ne day xam ne lii mooy seen responsabilité te et nan lañ ñoom nan lañ koy mën a defee donc danañ ci jàng ba pare débat bi dana yéeg du n'importe qui moom mooy toog di nekk politicien wala di opposé wu nu mu la neexee di wax kii da ngay laaj fayda parce que ñun dañu gis ne depuis des années fi ñu toll nii débat au Sénégal dootul débat politique parce que le débat politique ay homme politique ñoo koy kii donc pour nga nekk un homme politique dafa am benn xam-xam booy am am benn niveau booy am parce que problème yi ngay traité ce son des ay problèmes la yoo xam ni ay problèmes de développement la donc il faut sa xam-xam yéeg ba yegg ci développement muy développement ci mbay muy développement ci pêche muy développement ci secteur bu nekk mais tey jii ngay toog Sénégal suba ba ngoon at ba at bi jeex débat politicien bi doo ci gis kenn koo xam ni mu ngi wax développement doo ko gis doo gis ku wax ci mbay mi doo gis ku wax ci enseignement bi indi ci doo gis doo doo ko gis waaw donc ñun loolu moo taxoon ñu jóg te président Macky Sall mi toog fii tey nii xam nañu bu baax parce que lu mu teg ñu ñëw indil ko leneen ne woon ko ni ñun kat lii ñu def acte moo tax léegi ñun jógee na ci action civique gis ne que ñu doon ñëw ci ñun ñu ci bari ay borom xam-xam la ñu am seen ay projet ci lañ ko changé tudde ko mouvement de porteurs de projet yeewu leen voilà euh, Badou Ndao ñu laaj la ci euh, naka nga gisee démb prestation bu premier ministre Amadou Ba ci déclaration euh, de politique générale bi loo si analyser noo ko gisee en fait. waaw gis nga man nag je vais t'avouer que ni dëgg yàlla man déclaration de politique générale parce que ñun tamit ñu fi fekkee mu ngi bëgg a bari bon pour man. affaireu politicien la parce que fii gis nañ fi lu nekk donc man du ma def attention parce que ñun ñun instrument yi ñuy liggéey ñun instrument politique yi la ñuy liggéeyee pas instrument politicien yi parce que tey boo xoolee assemblée nationale bi c'est une assemblée nationale politicienne du assemblée nationale bu politique boo xoolee gouvernement bi tamit neew ma gars yi fa nekk muñu dara wala dara mais waa ji nommé tamit moom ay ci li muy nommé ci politique bari na donc Euh, maanaam euh, même premier ministre muy nommé nii da ngay gis ne politique da ci dugg ci lu bari bon donc le premier ministre bi dem ci wax ji fekk yooyu ñun instruments yooyu duñ ko liggéey ñun instruments yi ñuy liggéeyee moom mooy comme li ma la ko waxee sànq dem ci PSE bi bi nga xam ne moom moo ko bind ne li laay def te moom lay def moom la nekk di def moom là moom aussi il faut que ñu ñu reconnaître ne que euh, Macky Sall foofu moom Euh, dafa fa mën na dugalu ci ay affaire politique ak yooyu dafa ñëw bindu benn document moom la top fi mu nekk nii foo laal ci Sénégal rek li mu wax ci fi loo gis rek nga xam ni mu koy def rek boo demee ci pays bi mu bind koy teg donc ñun lii ay premier ministre boo xam ne mën na koo dàq suba wala ginnaaw suba wala benn élection am fi benn pakasal am mu dàq ko di wax ñun yooyu duñ ci def beaucoup attention ñun la mu bind te di ko def ñun loolu la ñuy liggéey ak moom maanaam loolu ci loolu la ñuy liggéey bu nee damay ñëw def les grands trains du Sénégal damay def li ñu loolu moo ñu intéressé parce que gis nañ ne jël na xaalis bi koy defee jël na projet bi mu koy defee jox na ko ñu koy war a kii ñun yooyu moom moo ñu intéressé donc euh, xam naa ni euh, man de loolu laa koy xool bon moo tax euh, mu ngi noonu maintenant nag bon il est évident que dans le jeu politicien c'est bien que euh, affaire bii di am bon parce que boo xoolee dans l'histoire du Sénégal euh, euh, yàggaguloo sax mi man ma enchaîner foofu ay motion de censure ak yooyu. waaw parce que bëggoon naa ñu wax si ci motion de censure bi. voilà député opposition bi yëkkati noo ko gisee. Mm-hmm. voilà damay fàttali nit ñi ne leen motion de censure bi fi njëkk am mu ngi am en 1962 problème bi ñuy wax fii naan Senghor ak Jàlla woon. monsieur de Saint-Louis moo ko indi woon ja nekkoon président du conseil donc comme premier ministre rek poste bi mu nekk nii tey dem assemblée nationale gars yi jóg xam nga déposer motion de santé pour daaneel ko mais différence bi ak tey moom mooy que ni boobu temps ñoom ñëpp ñoo bokkoon parti waaw y avait que quelques partis yu nekkoon ay kii bi ñoom ñëpp ñoo bokkoon parti alors bi jaan xam ne que affaire bi dafa nar a compliqué ci la woo gendarmerie ak affaire yooyu noonu fa la problème 1962 bi nga xam ne moom la ñuy wax après euh, jógee euh, am bi mujjee moom mooy 2012 gii passé bi Abdoul Mbaye nekkee premier ministre député yi déposé woon nañu motion de censure mais je crois que puisque ñoom parce que motion de censure boo koy déposé il faut nga am majorité absolue boobu temps demewul comme ni mu demee tey jii nii nga xam ni gars yi mën nañ laam-laame naan député bi dina dem wala dara euh, motion ba jàllul woon mais Abdoul Mbaye mii gars yi déposé nañu motion de censure contre lui doon ko reproché ne dafa bien yi nga xam ni après moom la fi indi woon bi mu nekkee banque yi daf ko blanchir motion de censure boobu jaarul je crois daal ñetti yoon déposé nañ contre un gouvernement te jàllul bon ñii ñëw déposé motion de censure mais bon c'est bien pour eux je ne sais pas mais est-ce que ñun Euh, li ñu waroon am ñun en tant que population nga xam ni ñoom on suppose que ñoom lañ ko nekkal bien que loolu tamit euh, mu ngi noonu lépp bu xale yi di wax euh, mooy loolu. Mm-hmm. ndax ñoom seen motion de censure bi lañ ko déposé par rapport ak. Euh, la politique gouvernementale bi nga xam ni Macky Sall daf ko teg sur le développement ndax def ko teg sur Euh, ni muy defaree les infrastructures xaalis bi mu ciy dugal bari na wala ay yooyu j'en doute parce que comme ni ma ko waxee depuis euh, vraiment quelques années ngi nii mhm. le débat n'est plus politique parce que homme politique homme nag daf fi commencé rare daf fi commencé jafe trop mais dëkk bi tamit bari na ay politiciens kon daa jàpp nga ni motion de censure bi amul amul sens en fait même su jàllee assemblée non mën na am sens ci ñoom. Hmm. am na am sens parce que gain politicien lañ ciy am. Hmm. bu jàlloon tey opposition nga gis opposition bi dafay tëb di dal di kii ñu naan woy daaneel nañ gouvernement boobu kii nañ yooyu mais ñun réellement ñun les sénégalais que gouvernement boobu daanu ça ça nous avancer à quoi donc ñoom ils sont toujours dans leur jeu politicien. Hmm. parce que tey motion de censure bi am ni bu amee euh, nu mu tuddati bi euh, kii ngóor soosu daanu. premier boobu. wàcce ko mais euh, Macky Sall dana maat beneen beneen premier ministre xam nga ci ci ci ci taxawaay te dans une même session mënuñu voté waat pour daane laat premier ministre boobu donc le problème du Sénégal ce ne sont pas ces jeux politiciens là qui nous yoo xam ne yóbbuwuñu kenn parce que tey problème Sénégal lii problème am moom mooy li nga xam ni Sénégalais yëpp war ci jóg politiciens yi politique yi dellu si politiciens yi dem wuti ji liggéey moom mooy nañu dellu ci politique bi ñu duggee ci institution bi xool le président de la République du Sénégal waxuma Macky Sall de mais le poste de président de la République du Sénégal doole jiñ ko jox ba président de la République di buum di bummi xam nga buum di bummi gi président di def di nome ñu nommé ñu jox ko pouvoir muy nommé ku ko neex ak nu mu ko neexee moo tax dëkk bi yëpp di di politique kenn ku nekk topp ci ginnaawam du du village ba ba ba ca kaw parce que moom mooy buum moom mooy buum bi ku bëgg a nekk député ci moom ngay jaar ku bëgg a nekk lii ku bëgg a nekk directeur ci moom ngay ku bëgg ainsi de suite ci benn doomu aadama kese donc moom moo loolu indi poste président de la république boobu moom moo indi déséquilibre ñi nga xam ni lépp yi am ci Sénégal tey poste boobu moo ko indi donc tey moom fexe na ba nañ ba poste de président de la république da koy nekk président de la république kenn mënu ko daaneel kenn mënu ko daaneel voilà donc haute trahison boobu ngay wax pour nga prouver ko c' est tout un problème donc moom mën nañ dem assemblée nationale gars yi di daaneel ay gouvernement mais moom dara du ko ci fekk day toog fi mu toog frenku laa ci aña bu indi keneen jeex na amu ci benn conséquence juste quelques secondes sax temps bi jeex na ànd nga si euh, troisième candidature euh, waaw wala déet bu président Macky Sall waaw wala déet nag moom duma ko tontu kenn waaw ci tënk rek waaw noo ko gisee d'accord noo gisee troisième euh, éventuelle troisième candidature bu Macky mais man li ma gis moom mooy que euh, candidature euh, troisième mandat bi moom Macky Sall la ak ñoom opposition bi yëpp ñoo ci ànd am xalaat Macky dama xalaat di xëy rek dina présenté waat mais opposition bi ñoo gën a bëgg ñoom ñëpp que Macky Sall wu parce que ñoom li ñu yaakaar moom mooy bu Macky Sall présenté woon sénégal yi mere nañu kuy def troisième manda mere goo xam ne danañ ko daaneel ñoom ñu mën cee profité Macky Sall nag tamit xalaat na xalaat ne moom ak ni muy doxale ak ni mu ko foogee moom tamit yaakaar na ne ak ni opposition bi demee nii ba nga xamee ni tey jii sénégalais xalaat nañ ne que bon voilà euh, troisième mandat xëy na mën na ko def moom aussi mu ngi mais ñoom ñëpp ci yem ci man ci samay bët ay politiciens nañ rek ñii la ñu bëgg duñ ko wax di manipuler nit ñi naan ma non o troisième mandat te dañ koy souhaiter pour que Macky Sall dem troisième mandat comme li daloon Wade dal ko Macky Sall aussi def ay calcul am bëgg a def ma euh, euh, troisième mandat bi demande sociale moo tax ma lay wax ni dëkk bi ay politiciens rek ñoo xam ne ou dañoo bëgg a gi ak ñoo xam ne jël nguur gi pare bëgguñ koo bàyyi. jërëjëf hmm. ah. waaw daaneelal. Hmm. moo tax nag ñun sénégalais yi ñoo war a jóg nag lijjanti suñu bopp ba seet ñun ñii li ñu nekkee ñu dindi leen ci waaw parce que mënuñu continuer ci lii nekk entre euh, danger ak danger lool la ñu dugal sénégalais yi lool nag il faut ñun ñu essayer ci génn. loolu mooy wax bi jërëjëf. Badou Ndao Rewmi FM mi ngi lay remercier le médiateur. merci euh, may fàttali yow yaay président au mouvement des porteurs de projet yeewu leen.